bu duloon télé bi duñ ko ci am ndax oustaz mënu koo dox mënuma koo dox mënu leen koo dox waaye fi télé mën a yegg tànk mënu fa yegg kon ñu sant Bougane gërëm Bougane ñaanal ko tey rek laa koy tooñ euh, bi may jógee Tiwaawoon ñuy wax téléphone ma ne ko ñëpp ngi lay sant fekk mu ne mën a nga def ma ne ko xanaa sant Bougane mu ree ah, na nga def ma ne ko xanaa sant bugaan mu ree ne ma waa cheikh bi lu xew ma ne ko li xew kay xam nga ko tey lii ñuy defal tayib te nekk bugaan sax xamul tayib miinentewul ak tayib mosula taxaw ak tayib waaye taw moo tax ñu ne tabe bu ndox di wàcc du xool toolu jullit du xool ko dul jullit du xool ko ñàkk du xool ko am Mhm. xool toolu sëriñ ak taalibe bu yonent ak bu dul yonent mhm. day taw day tooyal kon loolu mooy liggéeyam kon dañuy jiital sant Bougane mhm. euh, uutu ci ñi toog ci àdduna bi yëpp di ko seetaan tey ku ci jot télé bii moo tax fa tabaarakallaahu ñu sa ñaanal ko ci daraje alquran ak daraje ñi koy jàngale ak daraje yéen ñi koy jàngale yàlla ubbi ko mu yegg fu ëpp fi mu foog tabaarakallaahu nag nuyu ustaas adduna bi yëpp ñëpp bokk ci téléthon bi ñëpp ci bokk amul réew mu ci bokk yaa ngi may wax tey ci suba rek bi may ñëw ndax damaa coupé moom rek woola ndax dafa am ñu wax ni daa ko joxe trente millions ne bu ko kenn wax ma wax leen ne du dëgg ah yegg siwul ci ñun mm-hmm. bi ma jotee xibaar bi ustaas mu ne ma ci yow laa ko déggee ma ragal ne bu jaarul ci moom warul dem feneen mu ne ma ci yow laa ko déggee ma pare ci pour wax nit ñi ne leen trente millions yooyu ngeen dégg ah ñun ñii ah mën de yëguma ustaas it bi ma ko woowee dane ma ci yow laa ko déggee bi ma yendoo fi léeg-léeg ni romb ne waa dégg naa yéen am na ko leen jox trente millions ma ne ko dina leer keroog biñ fi toogee am na ko oote jaar ci maxu mu jox téléphone bi Oustaz sàll Sall mu ne dina joxe deux millions joxewu ko pour mu leer parce que dañuy bañ ngeen wuuluñu ñu toogal leen fii mhm. ñu ngeen di dégg ci duñu leeral te aw sumtu iqraar ko mhm. noppi yaa dëggal mhm. boobu jotuñu ko deux millions dugul am na it mille dollars mille euros yu ñu ma wax. Mhm. oo oh, ma ne ma waali joxe na ko jotuma mille euros. Mhm. Oustaz jotoo ko de. kon loolay amul. Mhm. pour leeral. parce que ginnaaw dañuy def suñu dernier euh, euh, téléthon loolu lañ ñaan yàlla bu ñu yàlla walloo fii lañ ko yemale ba war a dajewaat fii ne leen mat na sëkk waaye rus nañ nag. la yonent yàlla Muhammad defoon Moussa yebal ko mu wàññilu lu julli di wàññi ba mu des juróom mu ne ko dellul yonent bi ne ko rus naa ko ndax cinquante kuñ ko jox ngay wàññilu lu ba mu des cinq mënatumaa dellu Sidaaji Malick ne li tax delluwul mooy borom kersa la may nañu benn may nañu ñaar li ci des na dañ koy xare ji bu yeggul tey ñuy ñaan nag mooy mu yegg damay leeral nag loolu parce que damay bañ nit ñi dégg ñu joxe nañ tu joxewuñu kon 30 millions yi ngeen dégg amul du dégg 1000 euh, euros gisuñu ko 2 millions yi ñu waxoon Ousseynou Sallam téléphone bi jaar ci Maxtaar mu ñëw ci moom gisuñu ko kon ça veut dire ñooñu digee woon lañ digee defuñu ko pour mu leer ndax itam nag buñ la jiitalee oustaz ne la Iran demal ngeen raw ñu fuuf yow moom sama rakk nga duma ne nga mag ma waaw <laughs> ngay sama rakk tey suba bi ma ko wooyee daf ma ne grand frère na nga def ma ne ko maa ngi fi rek ma laaj ko mu ne mu ci yow laa ko déggee kon nag loolu laa bëggoon mu leer ak oustaz parce que leeral baax na boo leeralul am na ci léegi wax yi fu ne lay dem ñiy bind ngi bind tey fii ñu toog di waxtaan oustaz a ngi ni waxuma ko sax ñaata la am mu ngi nii toog bu ma ni yëgu ko kon kenn yëgu ko bi ñu ree ñoo am li nu am dañu ne nañu fexe ba bu mu senn ba ba ñuy dajawaat ñu ne d'accord nañ ko site internet yi ma interpellé yëpp ñi ma woo ñëpp dama ne leen duma ko tudd parce que du ma woor samay nawlee ma ko dénk kon sañu ma ko ñoom nag ku ko ci def sañ na ko waaye man mi ci kanam man miñ dénk duma ko sañ ndax buñ ne ma ko wax loolu may wax su neexee oustaz nag moom sañ na ko yoon may na ko ko maam maxtaar sañ na ko kenn sañ na ko waaye gënaa sañu ko parce que dañ la dénk bàyyi ñu la dénk wax donc loolu moo ci nekk bu ko defee loolu laa doon leeral nuyu nag plateau bi ñu ci ne nuyu waar régie bu baax nuyu plateau bi suñu jigéen laay njëkkee soxna Ndey Xadi wax dëgg yàlla euh, maa ñaan ne leen bu ñëwee nañ ko bàyyi mu dem ci xaalis bi di ñu konteel mhm. ndax maa oustaz mënuñoo boole ak assistant bu waxtaan ak noté mhm. képp koo xam ne oustaz am nga looy joxe mhm. mën nga ñoo fekk ci tele bi képp ku am looy joxe mën nga ñoo fekk ci télé bi damay wax ne kuy dem ba Bercy paas war a mën a ñëw ba Sen TV Bercy sori na de Maam Matar fa mu ne kenn xamul fan la <laughs> avion ngay jël sonn lu ne nga daj ko kon oustaz Ndiaye defe naa ñëw fii ci mm-hmm. tànk boo séqi muy yiw mm-hmm. ñun duñu toog fii di baab déedéet ëpp nañu loolu oustaz du ko def li mu jàng rek la leen di wax mm-hmm. sañu la sosal yonent bi ndax yonent bi yàllaa ko ne bu bu ma waxal lu ma waxul walaw taqawala alayna ba'd al aqawil la axadna minhu bil yamin suma la qata'na minhu al watin buñ la tàccoo ba nga wax lu ma waxul baa ñu tàccu la nga jottali waxuma bu ma koy jëflante yow duñ la mën a àtte kon ñu sañu kon li ñuy bëgg rek mooy fàttali leen jataay bi du conférence du causerie du gàmmu téléthon la képp ku bëgg a dimbale tey mën nga ñu fekk fii wa illaa téléphone yaa ngi fi 77 012 42 42 bu leen wax ni dafa plafone mais wari du plafonné <laughs> yeneen transfert yaa ngi fi wala nga def ko code mhm. voilà 77 012 42 42 bu ngeen dugalee dugul dem leen ngeen def ko wari wala ngeen def code mhm. jeex na beneen numéro bi mooy 77 656 92 65 656 92 65 ko ba tey itam ngeen def wari wala ngeen def ko orange money bu feesee def leen ko kot wala ngeen dem wari moom du fees bu dee wari nga def Ibrahima Badiane Ibrahima Badiane wala ngeen dem ci beneen numéro bi 77 656 92 65 656 92 65 oustaz mënul wax di wuyu téléphone Iran mënul wax di wuyu téléphone euh, ndigal li jógee ci mbooloo mi mooy kenn ku ne rek jëlal numéro bi dugal ci say ndimbal tout dugal rek wari mu jeex defal sa orange mu ne na def ko code jeex na defal ria day jàll MoneyGram day jàll bon ko transfert yi bëri na mais bu leen ko dàkk ci orange money dafa fees déedéet kon def leen wari Ibrahima Badiane ci numéro yi neen jox wala ngeen def MoneyGram wala euh, nu mu tudd euh, ria yeneen transfert yëpp a ngi fi kon ñu wax leen ne numéro yooyu la képp ku ci bëgg a jàpp li ñu gënal ne ku ko mane euh, ñu ñaan la ci doole weer wi ci barke weer wi ci barke yi ci xew yépp bàyyi leen xel ne waxoon naa ne asaka ji jëkk na fii ni bakken jekkee ci xarkanam kanam jël asaka ji parce que alquran moo ko tudd nee na mun nañ ko fayali nit bor kon ku ko fi def yàqoo ko benn site internet oustaz tey dañuy waxtaan ma ne ko dañuy taaje boon mu ne ma fu ngeen toll ci euh, oustaz Tayib Socé ma ne ko ñu ngi ci taaji bon bi xale yi dañuy tëggi pot di taaji bon suñu taaji bon a ngi nii waaw lu waay mën a def kay taaji bon ñi ñu indi ko fii ñu ne ñu ay sabar oustaz daal taaji bon ji muy fii loolu laa doon ubbee rek bés bu ngeen ne ma nag ñaataa fi ne fi mu ne ñi ci plateau bi xamuñu ko ñu ñuy déglu xamuñu ko man daal la yàlla dogal ma xamandi ko te bu ma dee ci diggante bi dootu leen ko xam xanaa ngeen daal di ko ko kon Euh, ñu jébbal la kàddu gi te ñu déglu nag nit ñi ñu war a joxe ñëw euh, am na ko ne suñu assistant mu ngi ci bunt bi muy faadal ku ñëw ci kaw boo ñëwee ci bunt bi dañ lay yégal soo ñëwee da nga yem ci oustaz faadal lépp lu ngeen ko jox dana dugg fii ci ñun joxe ko am na nag marché yi ñu waxoon oo nañ ma ne ma marché Sandaga dajale woon nañ ba am trois millions et quelque waaye dañu waxoon ne dañoo bëgg bàyyi ba samedi mu gën a yokk biñ ñëwee laaj ma ma ne leen gisuma ko gisaguma leen waaw kon nag loolu leeral baax na kon oustaz euh, maa ngi sas sama kàddu ci sa kàddu ginnaaw la béy sara bismillah rahmaan am mbégte ci ni liggéey bi di dox ah, waaw hmm. ci am yaakaar tamit euh, réew mi yépp ak bitim réew ñu ngi fekk ci liggéey bi du doyal ci jaajëf bugaan du ma ci doyal. wallaay wallaay maa la waxoon ne gërëmal nu ko santal nu mm, mm, mm, ndax xam nañu. waxtu télé télévision. li muy jar. kon nag boo ko gërëm rek. fawal suñu gërëm dolli ñu gërëm ko. dëgg la dëgg ay nit jox nañu ma ne ma bul wax suñu tur. ak kilifa la gu nekk ci Thiès. waa daal foofu laa ci mën a yem. du dëgg Euh, waaye jamciya bii nga xam ne ñu ngi ci Côte d'Ivoire. Mm. docteur euh, oustaz Iran. Mm. dajale fa seen astuut. Mm. yónnee ñu ko. yónnee nañu cent cinquante mille. foofa ca Côte d'Ivoire la ñu nekk. waaye jëf ji moo moo moo rëy. dem bi ma demee Thiès. ilimaan imaam lay daf ma maanaam bi may da may dab. daf doon daw pour jox mu participer daal. jumaa ji dëgg yàlla yooyu. Mm. loolu dara dootu la doy. Mm. Mm. wax naa la sànq nag ne la chance bi ñu am. mooy bii passé. suñ téléphone yi dox. xam wax naa la ko sànq. dëgg la bu doxoon danañ la dig ba nga ne doy na nañ ñibbi. wallaay dëgg la wallaay dëgg la wallaay dëgg la. ba nga ne dem ñibbi. Mm-hmm. waaye ba bu ñu la diggee ba nga ne doy na dem ñibbi. Mm-hmm. boo demee est-ce que da jot vingt pour cent yi ñu la dig. déedéet déet sax. donc sunu borom la la la la la xiir <laughs> ci mu kuppeel nu téléphone yi weesu ndax digg yooyu bañ a bëri li mu bëree dëgg la dëgg la dëgg la léegi nag euh, yëf yaa ngi noonu waxtu taajiboon lañ nekk waxtu azaka lañ nekk xanaa ko boole ñaar yooyu ak bii muy ñett wax dëgg yàlla am jërutul ñu naan la na nga ko ñeenteel na nga ko juróom ñu daal benn yitte la ñu am dañ fee bëgg dajale loo xam ne bu ñu ko ŋàbbee mm-hmm. teg ko ci loxo yi ñu koy teg mm-hmm. ñu man ne la ngeen amee loon mm-hmm. nit ñi mat na wala jege naa mat door a xam ni ñuy def léegi kon ñu ngi ci woo ñëpp euh, ngeen baal ma ci guddal gi waaye daal loolu mooy yëf <laughs> léegi nag ni nga def léegi am na solo mooy diw dig nanu waaye doxunu wax nga dëgg am na nag ku ma woo léegi ci Argentine ne ma damaa am ab oto. Mm-hmm. bu subaa naan ko jox ngeen jaay ko def ci. Mm-hmm. moom it maa ngi koy déglu. Ah, waaw waaw. moom maa ngi koy mm-hmm. bu nu ko joxee. ñu yóbbu ko ci parking bi jaay ko ñëw def ci rek. wallaay léegi nag oto bi ñëwagul. waaw te bu yàlla defee itam mu mat xam naa ne tey ba xaw xaw ma am na otoom amul oto su boobaa ñu jox ko oto bi muy muy oto tey rek a ah, su matee muy oto waaw même terrain bi ñu ñu jox. waaw. bu matee itam. Ah, ñu jox ko muy teereem. waaw ñu jox ko muy teereem. parce que itam nag dañu wax ne <coughs> loo laaj ci turu nit. delloo ko ci moom. rek incha allah laaj ci turu nit. ko ci noonu comme ni ko oustaz waxee nag mhm. sama rakk ji ni mu ko waxee <laughs> noonu rek la demee. donc euh, ñëpp daal ñu ngi leen di déglu di leen xaar. Mhm. ku ne ci biir Dakar même boo génnee dakaar sax. Mhm. dawal ñëw. nit dawee na dëkk ak dëkk ñëw grand théâtre gi waaw ñëw soraanoo gi fanaanoo ci lu dul lu bon donc ñëw ci lii nga xam dañuy xettali jaamu yàlla mu amee ci weer wu toll nii sant yàlla lay doon ba defee suñu jigéen a ngi toog soxna Ndey Xadi xanaa ñu jox ko rek am na yóbbante yuñ ko yóbbante moom itam jàmbaar la ndax lu mu bon bon moom itam dem na rek yëngal ba mu wadd mu indiwaale asalaamaaleykum Papa Iran maa ngi lay maa ngi lay nuyu di la ziyaare di nuyu oustaz Aliou di ko ziyaare bu baax di nuyu tamit yeneen oustaz yu fi toog yëpp ma Matar Gueye itam ñu ngi koy nuyu di nuyu téléspectateur yu ñuy seetaan di nuyu ak jaajëfal tam ñi nga xam ne jotoon nañu dina ci seen gafaga dugal ci lii ñuy woote di ci ñaan yàlla liñ ci am mu romb suñu njort bu baax a baax a baax ba suñu papa Tayib mën a jénn fu mu nekkoon dellu siwaat ci liggéeyam ne nuñ koy waxee rek jaamu yàlla soxla nañ ko mm. dëgg la waaw ñun nag biñ fi jógee keroog am na ñoo xam ne ñëw nañ ba sama kër mm. ne seen participation la ñu indi mm. muy fondation Maam Thierno di euh, surtout Jal Diop yi ak Maam Matar Ndumbe Diop ñoom joxe nañu addiya Seydina Limaamu mi ngi toll ci fukki junni cinquante mille ñu ngi ko joxoon nag du Thierno Amath Diop <coughs> moom moo ko indi woon mm-hmm. yoon wala itam bi ñu toogee waxoon naa ni am na kenn ku tudd Amangom mm-hmm. ne woon na bii di ñëw dina joxe cinq mille francs mm-hmm. jox ko Néné Aïcha indi nañu ko incha allah jërëjëf soxna Ndeye Khady may euh, non dañu wax nag ne dañu wax ne ñu baal ñu rek teel ñu téléphone parce que duñu ubbi téléphone dañu fas yéene waxtaan ñaan nit ñi kuy ñëw mu ñëw fekk ñu fii bu ko defee nag fàttali leen rek yi lay doon ngeen def Ibrahima Badiane ci ñetti numéro yi 77 012 42 42 wala 77 111 01 75 wala 77 656 92 65 ngeen def Ibrahima Badiane maam Matar Gueye am na ku ko yóbbante woon maam Watar bi bisimilah ci yóbbante bi. waaw euh, oh, waxal rek ma jottali waaw. waaw

nee ma dama xamul kër Iran rek waaye comme que yaay adjoint mm-hmm. kon xam nga booy boo préparé ma salaire ndax <laughs> waa ji nee na nga embauché ma <laughs> mu ne ma comme que yaay adjoint ah. euh, moom Aliou Ndoye daal di jël un million tek ko sama loxo voilà indi naa ko jox la ko léegi nag mu des dix-huit maires d'arrondissement ñu ngi leen di woo mm-hmm. waa kii jaajën jëf jërëjëf teg ko kon jëng maam Maxtaar euh, joxe na yóbbanteem mm-hmm. bi nga xam ne joxoon nañ ko ko euh, may itam am naa yóbbante boo xam ne kii segu cinq millions la boo xam ne jox nañ ma ko mhm. ki ko joxe nag aadama xam na ko aadamaa mhm. nga ne le moo ci seede daf ko ni dimbale leen ma bu leen ma tudd bu leen tudd sama societé allahu akbar bu leen ma tudd bu leen tudd sama so waxal Iran ko bu tudd buñ tudd sama société ah pexe amul nag kon ñu sant ko ndax journée alxuraan bi muy def Dakar fii ci Sénégal <laughs> fii ci Dakar ah muy journée bu am solo mu ciy joxe ay dix millions ñu ngi koy sant du ma ko tudd nag <laughs> ko baax la Ablaye safur la waaw joxe na cinq millions moom gis nga il faut ma tudd ko xamul te Adama <laughs> seetal koor li muy organiser oustaz xam nga ci dara. a baax. xam nga ci dara. jël ay million def ci ndongo yi. tey ñu til arrêté benn euh, sëriñ daara mu dëggalaat la mu defoon ci ndongo yi jël juróomi million joxe ko damaa bind ci enveloppe am na ko naan ana xaalis génnewu ko sec bi sec baa ngi nii <coughs> cinq millions la ci def hmm. donc mënuma wax nii rek léegi sax moom li wax hmm. noonu la li nga waxit noonu la kon ñaari noonu def ne in tubdu sadaqaat fa ni'ma hiya mooy li nga wax sunu borom nee na bu ñu defee dara ngeen wax ko ca kaw. Mm. wàññiwul dara. Mm. du dëgg. dëgg la wa in tuxfuuhaa wa tu'tul fuqaraa. Mm. loolu mooy bi mu def moom. kon nag ñaari yëpp la. dëgg la incha allah yal na ko yàlla fay te bëri ñu mel ni moom. bii itam yóbbante la kii 7 millions la. Evatra Evatra. Evatra lañ ko jox. Assane laa yebal mu ngi nii toog mu jëli ko moo ma oo ki ko joxe itam. nee moo nekk TFM. waaw moo li muy moom li muy ñaan. Mm-hmm. nee na bu ñu tudd turam. kii 7 millions la sànq la ma ko yónni ma yebal Assane mu dem jëli ko waaw kon lii 7 millions la. Mm-hmm. su fekkee ne da ngeen bëgg ma wax li fi ne. Mm-hmm. oustaz ma wax. waaw léegi. ah bu li ci ah. <laughs> léegi. 7 millions yaa ngi nii. Mm-hmm. Eva Traoré moom la jaar. Mm-hmm. nee na ki ko joxe da doon déglu télé bi dégg ñu tudd ko mu ne moone ne Iran mii di ma tudd ni ma ko soppee nag. Mm-hmm. te préparé woon naa pour def ci lii. jox ko soxna mu ñëw ci Eva Tra. Eva woo ma jox ma ko. ma ne ko foo mu ne ma maa ngi suma place ma yebal Assane mu dem seeti ko mu jox ko ko bi mu ko joxee Assane Assane ne ko compter ko ba mu leer. ma dog ko yóbbu. moo nekk nii juróom-ñaari million la te incha allah dinañ ko leeral ba mu leer kon lii ñëw na fi ku ñuy wax Evatra moom moo ko joxe chèque yi fi ñëwoon muy juróom benn chèque benn chèque benn bi président Ali Imran moo ko joxe woon mhm. muy cent quelques mille Salif Sow waaw mhm. euh, yi ci des par cent mille cent mille la muy juróomi chèque di cinq cent mille et quelque mhm. ba ca des nag juróom benneel ba cinq cent mille la ki ko joxe bi ñu demee banque dañu xaalis amu fa ki leen mhm. jox chèque bi kontam amul xaalis ñu delloo si chèque bi dinaa ko génne léegi su ngeen joxee ndigalu génne wax xaalis bi ni mu toll rek mhm. xam naa ne cinq euh, cent millions nag daan naqaree dàq li muy dawoo bëri man léeg-léeg ma toog di gént xaalis su ma néeg <laughs> waaw ndax rek xam ne cent millions dàq ko yombul dëgg la oustaz Seck Ndeye Khady baa ngi nii liir ko. chèque bi chèque gu Bank of Africa la. waaw cinq cent mille francs. lañ ko defoon. Euh, ñu wax tur bi wala. déedéet waaw. en tout cas daal jotuñu ko. waaw mhm. mhm. ah? jotuñu ko chèque baa ngi nii. Mhm. ki ko indi enveloppe la ko def. ndanguwuloon wax ma ne ko kan moo ko joxe nangu ma wax turam. bi ma demee di ko retirer. day ne ma chèque bi compte ba amul xaalis. ma delloo si leen ko <coughs> ne leen kon compte bi amul xaalis te boole woon nañ ko ci li fi nekkoon ci xaalis mhm. limaale woon nañ ko mhm. nekke booba amul waaye nag garaaw na mun naa am virement bu yéex la bu yegg mhm. mu ngoog loolu lay mën a bu lëndee waaw na ko ci wéer ñu dem jëli ko ñu dem jëli ko d'accord xam naa virement bu àggul la rek bu lëndee mu dem voilà <laughs> ñu dem jëli ko voilà incha allah ñëw bu dee koy joxe rek na yegg si amul luñ koy téye foofu waaw koy joxe rek nañ ko bàyyi mu ñëw waaw kon ñu déglu sama assistant muy Oustaz Fadal. merci beaucoup eh, mu ngi sama yotu rak. ñu déglu ko oh, Cheikh Aliou. Eh, salaamaaleykum wa rahmatulahi taala jërëjëf ñu ngi dem di nuyu di nuyu Oustaz Sall. di nuy mboolem mbokk yi nga xamante ñoo ni ko bokkal di waa collectif bi eh, am na association bu nekk Tëngéej bu tudd les amis de Yacine Ndiaye. ñoo fi indi cent cinquante trois cent cinquante trois mille euh, famille Kunta soxna su baax la nee na moom jëru tudd turam nañ nañu wax famille Kunta rek ci Ndiassane ñoo joxe cent mil yi. famille Kunta ci yi. lu Kunta yi mu kër maam Sidi Maxtaar. waaw cent mille francs euh, am na soxna Ndey Ngaye Diop. joxe na dix mille <coughs> soxna Soda Samb Fadia joxe dix mille ak euh, soxna maam maam Sey Jaxate mhm. waaw. mille ñoom ñëpp yaakaar naa ne dix mille la muy trente ñaari dix mille. Mhm. ak ñaari cinq mille. ak ak loolu waaw moom 7000 la joxe. moom bii 7000 la. kooku 7000 la joxe. ñaari 10 000 la soxna Sooda soxna Sooda Samb moo joxe 7000. soxna Sooda Samb Fadia moo joxe 7000 yi eh, eh, ndaw si eh, kii soxna Gaye joob joxe 10 mille keneen ki ma tuddoon joxe 10 000 fàttali laa tur bi kooku muy mu nekk 27000 francs waa inspection Dakar Plateau ci njiitul inspecteur Mouhamed Lo. ak jàngalekat yi nga xamante ni ñoo ci plateau bi yëpp ñoo joxe de euh, cent vingt cent vingt sept mille francs CFA. cent vingt sept mille. voilà francs CFA. voilà. Euh, association. almurabiyatul muslimaat muy association bu ëmb ay jigéen ñoo xamante ne ay jàngalekat lañu di ay yarkat euh, ci njiitul ki nga xamante ni mooy présidente bi di Albatul Bintu Zahra Lo ak secretaire bi nga xamante ni mooy euh, secrétaire général bi di Adja Jëmbu Fall ak conseillère bi di Seyda Ndumbe Seck ak ki nga xamante ni moo topp ci commissaire au compte bi di soxna Zeynabu Fàlloo ñoo jël trois cent mille francs bi ni naa leen ko jébbal ñu dimbalee ko Oustaz Tayib jamiyatu salaam ñu tuddee ko 300000 waaw 300000 jamiyatu salaam aajowoo jàmm ci njiitul El Hadji Moussa mi ngeen xam imam bu RTS ñoo association la boo xamante ne oustaz tey membre la ci. moo boole mboolem prédicateurs yi nekk ci rajo yi ak télé yi. ñoom oustaz Mor Thiam ak ñëpp ci lañu ak ñeneen ñu mel ni moom ñoo joxe 300000 francs bi dimbalee ko oustaz tey. waa euh, hmm. nga ñëwaat. waaw donc damay fàttali rek ni euh, Mouhamed bu institut Ahmed Sakhir Lo ginnaaw téléthon ba la passé ñëw na fi ba joxe fi 300000 francs bu bóon Mouhamed Niang. école administration loo bu buun ah, waaw waaw Abdou Abdoulaye Touré aussi ci Amérique la moom léegi laa gis RIA bu mu yónnee bu jógee Amérique pour ma wax ko rek ni ko RIA bi agsi na euh, loolu daal moo fi jot a gën ñëw ma demaat du ah. ma taataan rek ñëwaat ah. incha la barakallah daa def benn war ah dem fa hmm? dégg nga te yaa ngi ci bunt bi rek léegi xam ne da ngay joxe oustaz nga baal ma bëgg a joxe oustaz Fadel mooy ngeen gis léegi mu génn moo ne ci bunt bi di ak accueillir ñi nga xam ne dañuy joxe su ko defee képp kuy joxe ndànk képp kuy joxe rek ñu ngi lay ñaan boo ñëwee danga ko fekk ci bunt bi lu nga ñeentee ci suufit ñu bàyyi ñuy ñëw rek ñu yëg ci kaw bu ko defee oustaz bisimilah waaw waaw dama doon wax ni kii ci comme li nga xam ne ñu wari ko mm-hmm. mbokk mi mi ngi tudd Mayram Waar mm-hmm. euh, wari na fi dix-neuf mille mm-hmm. ki ci des mi ngi def ci Orange Money Eh, orange money du am aw tur mais jot naa fi ñetti orange money mi ngi nii ma tiim bi 1000 francs la bi 17000 mm. bi nekk 5000 euh, ñoom ay ay mbir la ay ay mbir lañu waaw <laughs> jërëjëf jërëjëf oustaz mm-hmm. xam naa rek dañuy gën a fàttali nit ñi ne leen euh, jataay bi mm-hmm. bu doon conférence la man du ma wax ku fi toog du wax dañuy bàyyi Oustaz Alioune Sall mu waxtaanal la mhm. waaye li leen wax rek la woote la te une heure de temps la ñu am mhm, te xam nga vingt trois heures lay jeex mhm. kon képp ku bëgg a ñëw mën nga ñëw euh, yegg si bi ci des euh, Oustaz nii ngay def moo jaadu képp koo xam ne am nga ku la sopp manul jaar fi di sa nit jox la leeral ko farata lii ku ci lekk dërëm sa bopp nga ko def <laughs> ku ñu joxit nga nëbb ko sa bopp nga ko def mhm. donc yi ñu dégg ñu tudd ko ñu ko topp parce que itam am na loo xam ne bu buñ koy defal oustaz Taib waa dëgg yàlla ñun suñu relation la ak moom mhm. ak suñu digganteeg alquran mhm. ak suñu digganteeg suñu borom kon ñii toog ñooy intéressant yi toogal fi ñëpp kon li gën mooy ni oustaz yi def gisuma lu ko gën ci àdduna kon ñu ngi ñaan muy mbokk tey muy Iran muy kum mën a doon. Mhm. buñ la joxe yóbbante ñëwal nga indi ko. Mhm. Ah, ñëwal nga indi ko ndax olof day wax ne segam ña ca walandoo. waaw ñoo daanu ca teen ba. Mhm. waxuma la ña ca pind ba. kon ñu ngi bàyyi loo xel ñëpp. Euh, keneen ku leen woowit ne leen lii la non xaalis yi fii lay jaar. wax naa ak oustaz ne sama rak nee naa ko ñaar benn loxo lañ xam. jigéen benn jëkkër mm-hmm. lu mu ca boole sariya duma ko mm-hmm. xaalis benn loxo mm-hmm. Eva Tra loolu la ko mu ne bu ma rey Iran waaw xaalis benn loxo bu bëree loxo du dem dëgg lii ñuy def boo gisee yàlla dimbali ñu ci mooy aljamaatu déggoo gi la mais bu xëccoo amoon du dem dëgg la sa ngi nii dañuy toog rek may ñëw ne leen lañu toll biñ fi njëkkee ñëw kon mën naa dem waaw mën naa ah, waaw biñ njëkk yi ñëw def euh, téléthon samedi ba le passé. waaw defe naa dimanche lundi mardi. ñu def daje réunion. Mhm. ba ngeen fi jógee 15 ngeen ma dénkoon. Mhm. yu tegal bi ma ñëwee réunion ma ne leen defe naa 14 millions ngeen ma jox. Mhm. Oustaz Ndiaye ne ma eh 15 600 xaw ma ko li ma bëri. ça dire mooy bul sàcc suñu xaalis. <laughs> ma yëkkati yeneen 15 millions mooy 30 millions. Mhm. may leen 30 millions laa indi tey ñu tàccu. Mhm. Ousseyn ni ma merci sama ma grand grand frère. merci grand frère. waaw <laughs> jërëjëf. xam nga buñ la jiitalee il faut nga góorgóorlu. tey nag Oustaz. Mhm. li ñu am ci xaalis. mooy 62 millions. juróom benn fukki million mhm. ak ñaari million mhm. moom la ñu amagu dese ñaata quarante dese quarante huit quarante huit million mhm. moo ñu dese xaalis bi nag du ma oustaz baal ma tegg kii boobu sa kii bi <coughs> machine bi yàlla nga balaa ngay sori kii mi ngi tudd loo mm. assurance Euh, orange mën na ñu quinze def ko ci liggéey bi. ok ah. ma nga ñu lool. naa gaa yi yàkkamti woon a xam li fi nekk. li ma jotaguma jot ci ay orange ma ne kon. Mhm. àgg na ci cent quarante huit mille. waaw bi ñu toogee léegi jotagum nañ loolu ci ay. waa régi may leen ñu fi yéen itam papis may leen ñu xaalis bi parce que ñi ko joxe il faut ñu gis ko jël leen table bi <coughs> bi moom fii ne ko ne ko leeral <coughs> voilà yooyu seen caméra yi lu ci ne. kon kon ma ñuy jëf ah. kon trente huit moo ñu te am cent. kay. trente moo ñu te am cent. mbokk mi ngi ñu seetaan ba France moo doon bindu loolu. Doro Sylla jërëjëf. Rési waaw. ñu fàttali leen rek numéro téléphone yi ngeen di jaar mooy 77 012 42 42 wala 77 111 01 75 wala 77 656 92 65. léegi nag li ñuy ñaan yàlla mooy jataay bi balaa jeex. yàlla may ñu lu luñ ko yeggalee. Mm-hmm. Euh, Oustaz. waaw borom set bi nee na. Ah. Euh, incha allah. lundi chèque boobu amutoon xaalis dan incha allah lundi hmm. compte bi dana am xaalis bi di ma jëli ko voilà incha allah lii defe naa bu ma ko bëggee lim doo fi jóg lii moom mënuma koo lim hmm. am déet mënoo mënoo ko lim dee leen ñu dimbale waaye papis yéen tam déggoo ñun lii bu ma ko bëggee lim fi la fanaan hmm. donc mën nañu tudd xaalis bi bis bu ñuy def ma jox ko télé bi ñu def ko ci ecran bi sinon ñu ut bés boo xam dañ koy fay may lim ba suba bu subaa ñu del siwaat waaye oustaz bu ne ci Sénégal daara ju ne ci Sénégal mm-hmm. jàkka ju ne ci Sénégal mm-hmm. ñëpp sëriñi daara yi def nañu ñu ngi ci juróom benn fukki million ak ñaari million mm-hmm. oustaz samedi lañ ko commencé samedi bi del si noonu lay am la de soixante deux millions <coughs> tuutiwul déedéet am déet kon am nañ yaakaar ci saa yi. waaw mhm. am nañ ci yaakaar. waaw 62 millions am. Mhm. léegi nag li ñuy xaar mooy lu complété am na waaye yàlla ji toog ci côté ba xam nga man di ma euh, li ma Assane di ma wax ne waaw est-ce que yaakaaroon nga 7 millions yi ma ne ko non mhm. dama toog fii rek di dundee yàlla. waaw Eva woo ma ne ma euh, diw waaye nee na bu leen ko tudd. joxe na 7 millions. Hmm. tey ci ngoon gi Oustaz Alioune Sall indi na 3 millions. chèque yaa ngi fi yoo xam ne chèque yi 1 million la. Hmm. donc loolu dañuy sant nit ñi Oustaz. waaye nag di ñaan rek ñu jàppale ñu ñun bëgguñu bëgguñu ne am nañu 62 millions. Hmm. nañ ñu baal li ci des déedéet. dañoo bëgg ne mat na sëkk wala ëpp na. oto bi ñuy wax. kay laa bëggoon a ah, Argentine am na maxu jox na mhm. xaalis boo xam ne fa la jógee. waaw cent et mille. Mhm. Argentine. Mhm. waaw. salaamaaleykum. waaleykum euh, euh, ah. wax ni moo fi yónnee un million bi. waaw kay voilà. kon Wally mi ma tuddoon sànq. ne waxoon na dana joxe mille euros. na indi un million. Mm-hmm. jërëjëf Waly borom 2 millions yi nag gisuñu ko. Mm-hmm. Euh, euh, bi ci des 30 millions yi gisuñu ko xamuñu kuñ ko jox bu dee lu am la. Mm-hmm. loolu it na leer kon nag boo ko tegee mu nekk 60. 3 millions 63 millions. moo fi nekk. de dese 37. dese 37. 37 millions. ko am naa ñaan goo xam ne gi Iran. waaw. xam naa su ma commencé ñaan. la béy. léeg-léeg li ñu dese ñu mu mu jàppandi mu bëgg koo ñaanaat mooy damay wax ne wa isaa huyitum bi tahiyatin fa hayyu wa daanaasa 37 millions yaat yi amin amin yaa rabbi merci sama rak merci grand kon léegi mu ñëw incha allah kon nag léegi moo ñu dese am de du loolu la wax. Mm-hmm. ñu ngi ci 62 millions. 3 103 millions 103 millions. 63 millions. Mm-hmm. la ñu am. xaalis baa ngi nii ngeen jàkkaarloo biñ ma waxee ne ma wóorul may ne lu fi wóoree di amul. nit ñi boo leen laajee du indi aw kayit naan leen som baa ngi nii déedéet mbind déedéet da ngay teg xaalis bi. ji nga yii ngeen gis enveloppe yëpp dafa am chèque yu ci ne. Mm-hmm. chèque yooyu moom lañ booleeg bu ne ak million. sec bu ci ne un million ñu boole ko paquetu un million. léegi ñu ngi ci soixante. trois millions nii euh, sunu doom def yónni léegi. defe naa ñi ne ci dëkk bi yëpp mën nañu daw ñëw. Mhm. te am na benn bon volonté boo xam ne yàlla dénk na ko loo xam ne. Mhm. yëkkati 37 millions du dara ci moom. dëgg la du dara. mu am ci li oustaz wax taajaboon. waaw xetti li ci goru yàlla. Mhm. mu dellu ci njabootam lu mu jaamooti yàlla nga am ca dara. sagalee ñu ko sagalee ñu ko. Bougane Gueye Dany nee dana joxe un million te joxe deux millions mu muy ñaata. deux millions muy trente cinq. muy soixante cinq millions. soixante cinq soixante cinq dolli na ci. deux millions muy soixante cinq. te joxe des médias grand cœur des médias cinq cent mille. ak lépp mooma. lépp mooma dafay sagal jaboor rek. mu joxe mënuñu ko xayma. waaw lépp mooma. kon Bougane dana joxe deux millions muy soixante. 65 millions millions. Mhm. kon nag euh, li ma leen wax rek. ñu dese numéro téléphone yaa ngo. 35 77. 37 012 42 42. wari orange money loo ko dugal baax. Mhm. incha nga def bu dee wari Ibrahima Badiane. Mhm. bu fekkente ne euh, beneen numéro bi la 77 111 01 75. 77 656. 92 65. pour ngeen essayer ñoo jot jaru ko parce que dañu ne ci plateau bi. waaw donc li gën rek. mooy dem leen ci war yi ngeen dugal wala ngeen def ko code bu dee dafa plafonné mm-hmm. loolu rek moo ci gën donc loolu rek la ñu mën a dem riyaa ne foo mën a dugal nga dugal fi inshallah loolu la ñuy ñaan kon oustaz ñu ngi ci sosaan ku ñu fekk ñu jël moo ñu gënal waaw moom matt yi fii daal ci plateau bi bala ñoo jóg waaw moo ñu dàq moo ñu gënal su ko defee oto ba li ñuy wax mm-hmm. bu fekkee yegg si na bu dee yegg si na ñu jox ko oustaz Taïb terrain bi itam ñu jox ko oustaz Taïb jeex na jàmm na su fekkee matul itam ñu jaay ko rek. def ko ci mhm. parce que ñun mu génn moom lañ bëgg. duñ toog fii nag naan buñ ñu mayoon wàññi ñu noonu. 100 millions daal lañ wax bisimilah ñu bàyyi sama assistant mu ñëw Oustaz Fadal tafadal. Euh, jërëjëf euh, Cheikh Iran. Euh, commerçant mbokk yu baax yu jógee Sandaga. Mhm. ñoo ñëw léegi. Mhm. muy ñi nekk ci rue mi Galandou Diouf ak Escarfet. Escarfé ñoo fi ñëw indi fii trois millions neuf cent mille ñoo ko jóg jëm sa tey maam Sidi ko soof nga hmm. <laughs> ana maam Sidi commerçant yi nga ah, xamante ni nga ne dégg naa répété waatal wàcce bismillah commerçant yi ko indi ah. euh, délégation une forte délégation la ah. maam laay lu ana ñu ngi fi waaw ñu ñu ngi fi léegi ñu ngi doon di wàcc léegi ah wàcc nañu waaw ñoom trois millions neuf cent mille lañu jox lañu dajale commerçant yi nekk Sandaga mhm. ñoom ñëpp ak seen i bokk mhm. dajale nañ pour dimbali Oustaz Taïb Socé mhm. trois millions neuf cent mille du dëgg waaw léegi dama lay laaj bu fekk c'est soixante cinq soixante cinq fi nekkoon waaw mu nekk soixante huit millions neuf cent soixante fi nekkoon ah waaw bu ci bii dolli ko soixante huit mille neuf cent soixante bëgg nga dolli ma cent muy quatre millions. du noonu. waaw ma cent. man de sama orange money bi cent fi. waaw léegi naa jël cent yi. waaw defal ko commerçant yi mottali leen ko. muy 69 muy 4 muy 4 millions. muy 4 millions. ñu daal di am ñaata. mu nekk 69 ah. millions. Adama. su ñu jëlee 100000 francs ah. yokk mu nekk 4 millions. waaw plus 65 vingt et un millions soixante neuf millions commerçant yi seen xaalis ni ah trente et un millions ci des moo des kon kon kon euh, euh, euh, assistant delluwaat déet xaaratu di ma il faut ma lim turu délégation bi da leen ñor lool délégation waaw maam laay moom la temps bi nag Ibrahima Kane mm-hmm. Abdoul mm-hmm. Aziz Ndiaye mm-hmm. Ousmane Sarr Abdoulaye Diagne Kéba Manga voilà voilà xaalis baa ngi nii muy 3 millions 900 eh, ñu teg ci muy 4 millions. fekk si 65. muy nekk 69 millions. Mhm. kon donc ñu xaar ju jaamu yàlla yi rek. Mhm. am nañ yaakaar xëy na léegi mooy. 31 millions moo des millions moo ci des moo ci des. wa izaa huyyiitum bi tahiyyatin fa hayyu wa daa millions yaati. ñaan boobu grand naa la ko jox. waaw ah, baax naa la jox ndigal <laughs> mon grand frère. ayca bu ko defee la oustaz. waaw loolu moo ci ne ndey xadi. Mhm. Ah. waaw ñu ngi toll kon ci 69 millions mu des 31 millions. waaw sans compter yi nga xam ne jot nañ ko ci orange money yi. est-ce que compter nga lii. waaw lii moom. Mhm. mi ngi nii 900000 euh, lay nekk parce que jël nañ fi 100000. 900000 ak 77000 euh, mu nekk 977000. Mhm. moom lañu ñu yore ne. voilà kon nag léegi ñu euh, nekk ci 69 millions. 977000 mhm. millions rek. ñu bàyyi ko noonu ba ñu complété dugal d' accord. kon ñu ci juróom benn fukki millions. Mhm. ak juróom ñeenti millions. juróom benn fukki millions. ak juróom ñeenti millions. macha allah am naa yaakaar oustaz. ñàkkul. yàlla mu baax mi mhm. dana tàggat jaam ba ko neex mhm. wala ya ko neex boo mhm. ñu ñëw def ko am naa ci yaakaar dix-sept mille waaw c'est bon waaw Ousane Ndiaye Ousane Ndiaye nee na am na ko envoyé dix-sept mille kon ñu ngi ñaan rek ñëpp téléphone yi ngeen di oote ma jéggalu leen joxe leen rek war yi Ibrahima Badiane parce que plateau bi ñu nekk mënuñ ko boole ak wax mhm. téléphone war defee loolu la ñuy ñaan mhm. ñu ngi ci soixante neuf millions mhm. dese trente et un millions trente et un muy fanweeri millions ak benn moo ñu dese ñu ngi tàllal loxo nag taaje boonu daara ji ak tam gi ak jekkali at mi nga xam ni ñu ngi ci samedi dimanche lundi mardi at mi jeex nga nekk mardi nekk la premier. Mhm. defe naa nga tëjee at mi xettali ko ñu tëj dara gënu ko. kon ñu ngi ñaan ñëpp rek ñu ne biir Dakar ku nekk feneen. Mhm. nga ñëw ku mënul ñëwit nga yónni loolu rek lañuy ñaan ndax euh, euh, lii yegg rek mooy suñu it. incha allah ci li ñu dese ci temps bëreetul. donc kon li ñuy ñaan rek mooy fu nit mën a nekk. Mhm. ci biir Dakar fu nit mën a nekk ak fu dul Dakar ñu ngi lay ñaan rek ñu ñëw kenn ku nekk. def ci participation ndax ñu man a matal li ñu soxla insha allahu taala ci euh, Modou caw voilà euh, moodu caw mu ngi ci xaalis bi yow yaa ko indi woon la chèque la ma jox Modou Thiaw mooy chèque yi ma leen wax joxe na chèque un million day waayam nag hmm. Assane laa yónni woon mu jëli ko <laughs> naa waayam la day bëgg ñu dégg ko ñu allah waaye xam nga boo limee ñii bàyyi kii doo du sotti. dëgg la am nañu suñu avocat itam ñëw na fi nga xam ne moo nekkoon avocat wu daara bi fi bi ñu fi tëjoon wax dëgg yàlla muy Sarr moom it joxe na fi cinq cent mille Kebe ñëw na fi joxe na fi quatre cent mille euh, Maxtaar ñu fi joxe bëri na. boo ko mm-hmm. bëggee lim da ngay am koo bàyyi. dëgg la waaye nee nañ leen say wii moom defe naa ku ko bëgg a lim fii. fi jóg ndax borom yi téeméer a ngi ci. borom yi mille a ngi ci. waaw am na ku ñu wari onze francs onze francs fukki dërëm ak benn man am na ku ma orange money cent soixante-dix-sept francs orange money sax laa damaa jum orange money onze francs fukki dërëm ak benn mhm. mais kooku boo koy lim doo ko bàyyi ndax borom million waaw dëgg la eh de sañuloo ko kon yàlla duma la donc kon ay onze francs ngi fi oustaz wax na am na luñ ko wari bu orange money 177 177 am na ñu joxe 1000 francs ñii téeméer ñii junni ñii ñaari junni jàkk yi joxe nañu jumaa yi joxe nañu daara yi joxe nañu imaam yi joxe nañu sëñ daara yi joxe am na nag lu may leeral oustaz am na ku ma wax ne ma dégg naa xalifa général tel jox na leen ay millions mhm. amul gisaguma ko de man jotuma ko amul benn këru diine boo xam ne jëlee nañ fa dara mu ñëw ci ñun gisaguma ko de waaw mu leer pour ñu leeral baax na. Mhm. parce que itam nit ñi ni ñuy dawalee wax yi dafa garaaw. waaw lool lool da gis luy circuler loo xam ne mhm. doo xam fu mu jógee. kon amul benn këru diine boo xam ne yónnee na ci ñun ne maa participer lii ci seen taxawaayu daara ji wala sunu taxawaayu daara ji ndax ñoom ñëpp ci daara ji nañu bokk ndax daara jee meññ ñëpp. waaye leeral leen ne amul. daaragul amul. loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax. kon nag taajaboon gàngoog. Mhm. yàlla jàngoog. tayib nag tayib mu yàlla. Mhm. tayib tayibu alquran la. waaw tayib tayibu daara la. tayib tayibu yonent bi la. tayib tayibu Sénégal la. tayib jàmbaar la. Euh, kenn xamu ko ci leen lu dul daara. Mhm. kon bu demee ba yàlla nattu ko <coughs> daara dañuy taxaw def seen itte jërë ngeen jëf parce que samedi la woon. Mhm. samedi bi del si. ngeen am 69 millions. dëgg dëgg dëgg jërëjëf Bougane. waaye dëgg dëgg jërëjëf yéen ñi joxe seen alal ndax tabaarakallaahu lii yomb ni def na téléthon ba taay mënul am lii kon nag ñu ngi ñaan di xaarandi seen taxawaay mm-hmm. euh, fu ngeen mën a ne di ñu seetaan ku ñu seetaan itam te amoo mm-hmm. waaw ku ñu seetaan itam te amoo am nga sa waay mm-hmm. ju am nga woo ko téléphone ne ko ndax yaa ngi seetaan télé seen TV mu ne la déedéet nga ne ko ah dañ fay laajal Oustaz Taib Socé jàppale ko su boobaa ku mënta yéeg <coughs> man a bës ku daanu. dëgg la de golo golo gu mënta yéeg mën a bës ku daanu. mu ngoog hmm. na golo gu mënta yéeg it mën a bës ku daanu. Hmm. ku am yóbbante ñu recevoir ko. ku hmm. amul yóbbante nga bàyyi ñu ñu ni suñu liggéey ba ba ñu yeggal fa ñu bëgg a yegg. kon nag li ñuy ñaan rek mooy dëkk bi yéen a ngoog Sénégal a réseaux sociaux yi itam ñu sant leen ndax gaa yi ñoom yi ñu ngi partagé. waaw dëgg la de muy dem fu ne di envoyé euh, yëgle yi. sant itam ki nga xam ne moom la ñu buggaan booleel. Mhm. muy Kélédor. Kélédor mhm. lu ne la ciy daj. waaw bu buggaan xasee joxe ndigal moom jeex na lu ne la ciy daj pour mu jaar yoon. boo defee ne kon gars yi mbir mango. Mhm. képp koo xam ne da ngay joxe man nga jaar ci numéro yooyu. waree ngi fi Ibrahima Badiane ngay def. orange moo ne bu defee bu dekkee dafa plafonné nga def ko kot. mu ngi fi Ria ngi fi yeneen a ngi fi. donc loolu rek la kon ñu ngi ñaan rek ñëpp. ñu bàyyi ko xel mhm. euh, yàlla na nu yàlla may rek ñu oustaz defe naa kayit bi la ñu wax ne nga xool ko pour woo ci ci nekk sëñ Fallou daaxu ne waaw imaam Fadal mu ne dafa bëgg ñu woo sëñ Abdoul Ahad Ka mhm. maire Touba mhm. nee na bëgg nañu woo ko kon ñoo ngi koy woo ku ñu wax soxna maam xarit Mbàkke bu Cheikh Mouhamadou Mourtada euh, imaam Fadal nee na ñu boole ko ci ñuy woo kon ñoo ngi koy woo ci suñu suñu 31 millions yi des. ah kii àll la commerçant la. Euh, marché Ocass ci Touba moom tam. nee na ñu boole ko ci ñuy woo. Abdou Karim Fofana. Euh, moom tam ñu ngi ko ciy woo. nee na sëriñ Abdou Karim Mbacke Makarimul Akhlaq. nee na moom tam nañ ko boole ci ñi ñuy woo. kon list bi di juróomi nit. la Cheikh Mouhamadul Fadal Guèye mii ne woon. nañ leen boole ci ñi ñuy woo. waaye. nit mën naa ñàkk dégg turam ci mm. liste bi mm. xam ne moom it woo nañ ko woo nañ ñëpp toogaay bi daal li muy tekki moom ñëpp lañ ci woo ñëpp lañu ci woo lañ ci woo képp ko yàlla man loo daal oustaz waaw te nga am yéene ji mm-hmm. laggal ñëw xam naa daal ñu toog fii ne mat na sëkk waaw amul nga ne bu ko ëpp doole dëgg la toog fii ne mat na sëkk mm-hmm. ngëneel bu ko ëpp doole amul te ñun xam nañ ci dara mm-hmm. yéen sax xam ngeen ci dara <coughs> kon ñu ngi ñaan rek ñi ci biir dëkk bi ku nekkul ci dëkk bi yor sa oto Dakar ak fii gaaw na mhm. ndaw bis bu ne gars yi samedi ñu ñëw doxal ko Dakar daw dellu seeni dëkk <laughs> kon daw ñëw doxal ko ci euh, tayib ji mhm. dellu sa dëkk nga am turu tayib parce que ak bu mooy lu sell lay ndeysaan ah, mooy firi lu sell tur wi loolu lay firi kon képp koo xam ne euh, ñëw nga mhm. jàpp ci sellal nga kon ñu ngi ñaan ñëpp rek ñu gën mm. am taxawaay bi. waaw oustaz nit ñaa ngi envoyé xam naa ci téléphone yi. waaw man de ah. tuuteetee dama am deux cent mille. waaw ah. ci orangement yi. Mm-hmm. Euh, mi ngi nii sunu téléphone. deux cent mille def naa ne deux mille